وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم si kaa ngi Mouhamad Fadal Mbacke mën naa waaj si kaa ngi Mouhamad Fadal Mbacke وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعدكم بعدا فليؤد الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون يعملون عليم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة السلام عليكم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 واتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون arham ndeysaan inna allaha kaana alayhi gis ngeen sëñ Fallou Mbacke de ay yaayam ak ki bàjjanam ah waaw xanaa yow de atul yatama wa lahum wa la tatabat دلو الخبيث بالطيب waaw waaw xol yi sedd na ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم boo leen mayee tuuti caméra bi waaw moom ay bàjjenam dañoo ñëw ñu ba pare waaw boo mayee caméra bi tuuti dina gën a baax waaw dina gën a baax waaw inna allaha yudafi'u anil ladina amanu waaw kay moytu caméra bi inna allaha la yudafi'u minash shaytanir rajim waaw xam nga bàjjani nag dañoo bëgg inna allaha yudafi'u anil ladina amanu noonu la yaa Saynabu gis nañ lépp wallaahi nii rek la danaan alquran fay rek danaan alquran fay waaye na leen Sëriñ Tuubaa fay macha allah macha allah alquran jar na ko de am leer gu tuuti ay atam bareegul mu mokkal téereb sunu borom bi loo ko bégalee rek jar na ko macha allah waaw moytu caméra bi moom day baatal rek moom ay bàjjanam dañuy baatare rek moytu caméra bi caméra bi soxna si waaw caméra bi ngay moytu waaw leen kumba waaw leen góor macha allah الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الحق لله أن يقولوا والله القرآن دي يرنكم كنت يجي القرآن دي يرنكم الله ما شاء الله فلولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع macha allah jar na ko de. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا حسبك صدق الله العظيم macha allah sadaqallahu asim wa anta ahsan waaw xam naa leen de su ma leen laajee maanaam sëñ Fallou jàmbaar la ñu koy jàmba yëpp jàmbaar lañ waaye yéen itam jàmbaar ngeen te bëgg lu baax soxna si loolu ab kado la waaw da ngay taxaw nii jox la ku moytul caméra bi tuuti day taxaw day taxaw nii xoolal xam nga lu ma bëgg na taxaw nii kado yi ngeen ko koy jox benn par benn noonu laa ko bëggee bul jaay bul jooy sëñ Fallou kaay fii soxna si taxawal nii kaay taxawal nii ma woon la day tolloog yow damaa bëgg lépp rafet image si daa war a rafet taxawal nii fii lay tolloog yow gis nga gis nga nii voilà cadeau yi ni ñëw par benn islam lu rafet la bëgg dañ koy organiser mu rafet cadeau yi ni ñëw par benn waaw loolu yëpp boo leen ko waxee dañ koy jàllale ñëpp di ko dégg lu baax moom dañ koy wax sa kaw ñu di ko dégg waaw foto leen ba mu rafet teppil cadeau bi bii ku ko koy jox teppil boobu dindi ko lu baax kenn du ko nëbbu soxna si teppil mu yaatu. Mohamed Fadal Serigne Fallou Mbacke moo ko jox diplôme. waaw Mohamed Fadal Mbacke. Serigne Fallou Mbacke moo ko jox diplôme kenn ko ah. na ko ñëpp xool ku ko jox kado bi maamam moo ko ko jox maam Soda Sène na ko ñëpp gis yéen a koy gis maam Soda Sène kay ba ma gisee muy waaxu di ñëw laa xam ne bég na si sëtam bii maam Soda. maa ngi lay wax ne lii nga def yàlla gis na ko yonent bi gis na ko Serigne Touba gis na ko maamam sëñ Fallou gis na ko ana xasida yi nee na na xasida yi ñëw na kado yëpp ñëw na kado yëpp ñëw jëf ju baax des koy fësal jëf ju baax des koy wane waññil ma kado yi ñaata la kado yi sëñ Fallou yii waññil ma ñaata la ak kado yi ñu jox ay jàngale katam ne lépp leer jëf ju baax des koy fësal waaw caméra bi jël ko ba mu leer noon la bii ku ko ko jox soxna maam Xodja Mbàkke magam waaw kumba waaw noonu laa bëgg kado yi bii soxna maam Xodja Mbàkke magam moo ko ko indi beneen bii ku ko kon kado yi bari na waaw ki ko doon jàngal Baye Taala ak yaa say busa yaayu daara ji ak kan maam Moor ak bàcci kado yi na ñëw waaw Baye Baye Taala am nangul ko sëñ Nasir wala Baye Talla mu ndaw kaay kaay Baye Talla mu ndaw ma woon la waaw Baye Seex bii sëñ Fallou mii moom sëñ Modou Mamoun moo ko jox Baye Talla kado aywa na beneen ñëw na beneen ñëw mu leer mu gaaw ñu wéyal liggéey bi xoolal su beneen ñëwul nag damay wax ni day dama koy dagg de dama bëgg mu gaaw waaw bii ku ko ko jox ak ku moom Ibrahima Fall na waaw nee nañ cadeau yi daa bari waaye yëpp moo ko moom alquran Ibrahima Fall cadeau bii bàcc moo ko moom na ñëw jël ko bàcc bii maam moor moo ko moom bàcc yaa nekk nii nee nañ bàcc si ñàkk ki ñaan gi bàcc ku baax la nee na maam moor a ko jàngal bi mu ñëwee si daara ji ba ni mokkalee na ko ñëpp xam bàcc ku ñàkk ki ñaan la joor joor mi leen di toggal ana joor ku koy jëlal bàjjan ay sa am joxal ma joor joor mooy kii toggal xale yi sëñ Fall moo ko jox yaay joor waaw kay jëlal nañ ko ay waay joxe mu gaaw ñu dem liggéey bi dafa des lu bari bismillah bismillah dafa des lu bari bàjjan maam say busa bàjjan maam say busa am ku koy jëlal bàjjan maam say busa waa waajuru sëñ Fall yi nee nañ ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant si sa taxawaay bu rafet si daara ji ak ban mu gaaw asalaamaaleykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن مستوى ما شاء الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس بئس المهاد وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمس مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم sadaqallahul azim masha Allah takbir takbir takbir Serigne Ibrahima Fall di doom ci Serigne Moussa Fall ak soxna Mati Ndaw njàng mu leer mu rafet la jàng waaye nag bëgg naa ñu ko joxee diplôme am ñu dem ba fee fotol moo ko foto yu rafet rafet ma masha Allah kan moo koy jox diplôme am sëriñ Moustapha Xuma moo ñu koy joxal diplôme am sëriñ Xaadim looy imaam nag lañ amoon yéene mu jox ko ko waaye nekku fii sëriñ Moustapha Xuma moo ñu koy joxal diplôme am ma kaana ummatan qaanita قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين الصالقين ثم أوقينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإذ دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنت ترابا وآباؤنا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا القبل وقر واي وقر bàjjen yi daal xam naa ne bég nañ ci seen bopp am na solo moom bégal ko baax na lool bégal ay sëriñ daaraam baax na macha allah qul siiru fi lardi fanzuru kayfa kaana aqibatu lmujrimin macha allah jërëjëf wala tahzan alayhim Serigne Saliou jërëjëf na ñëpp xool lii Serigne Saliou Diallo moo ko jox Baye Talla na ko ñëpp xool kado bii Serigne Saliou Diallo moo ko jox Baye Talla na ko ñëpp xool kado bii Serigne Saliou Diallo moo ko jox Baye Talla àndale ko nag sant gërëm ak ñaan sant ak gërëm yu réeréy ak ñaan waaye lii waaye lii nañ ko foto waaye lii rafet na de kaar kaar nañ ko foto yaayam yaayam Sali Diallo moo koy jox kado bi Serigne Saliou Diallo yaayam moo koy jox kado bi mën na koo jël Mouhamadul Amine Diagne mën naa jege si ko defee oustaz tàllal ko fi mu tari Mouhamadou Amine Diagne waaw gis ngeen ko kon mi ngi nii Baye Talla Ndiaye moo ko moom Serigne Saliou Diallo moo ko ko jox ak i mbokkam ànd ak sant ak gërëm ak i mbokkam yaayam ak i baayam ak i bàjjanam ak i tantam ak i magam ak rakkam ànd ak sant ku gërëm Baye Talla mu ndaw anamu am joxal joxal sa sa maam yow moom bu ma yeboo nga jege ma rek xam naa ne man léeg-léeg dong bu ndaw dama koy noggatu te yow comme ab dong bu ndaw. ngir jëmmam jii ak jëmmi alxuraan dana la tudd tudd fa nga joge tudd saw tur tudd saw sant waaye nee na ñun ñëpp xam nañ ne loolu yombul ba tax na mi ngi leen di sant sant goo xam ne am na fu mu dalee waaye amul fu mu yem. kon képp ku dégg sama kàddu gi jàppal ne Baye Talla boppam tudd na saw tur yow tudd saw sant tudd fa nga joge waaye nag. ngir ñu def ko ay délégation mu tënkaale ñëpp moo tax mu ne nañ tudd délégation yii. soxna Sali nii mu ko tuddee tam ku ko dégg rek. soxna Sali Diallo da jàpp ne lii Baye Talla def doy na sëkk. jëppaloon Serigne Saliou Diallo bi. délégation yooyu Baye Talla nee na mi ngi jiital ci sant gi Serigne Modou Mamoun Mbacke. Serigne Modou Mamoun Mbacke yebal na doomam Serigne Fallou Mbacke ak soxnaam soxna nguy Cissé soxna nguy Fama Cissé. di waajuru Serigne Fallou ak seeni ndimbal yu ama am solo kon nañ ko déglu bu baax Baye Paale nee na délégation Serigne Modou Mamoun Mbacke teew na fi yebal na doomam Serigne Fallou Mbacke ak soxnaam soxna nguy faama siise ak seeni ndimbal yu ama am solo Serigne Fallou Mbacke songay bu yebal na ak njabootam ñu ànd ak Serigne Daouda Touré ak seeni ndimbal yu ama am solo soxna Awa Ngom ak i mbokkam teew nañ fi ak seeni ndimbal ak seeni taxawaay soxna Sali Diallo ak i mbokkam ñii ñëpp Baye Talla nee na yéen na ngeen xam ne daara yi seen daara ginnaaw bu mu donee daara yi ñëpp ni ma leen ko waxee Baye Talla nee na dafa wax ñu dégg ñu leen di jottali lii may wax waxuma ko ndax man nii ñeen di liggéey ak Baye Talla xaw ma ko ku mel ni Baye Séni daal moom xam naa ko ndax foo gis Baye Talla gis naa ko gis ko fa Baye Séni ak Baye Seex ñooñu ma si ñëwee xam naa lan ma wax dinaa ko wax waaye nee na képp ku bis bii tax a jóg bu sañoon dana tudd saw tur tudd saw sant tudd dëkk ba nga jogee waaye nag mu boole ko par délégation moo tax mu tudd Serigne Mamoun Mbacke njabootam ak ñi mu àndal yëpp sa kaw délégation ba Serigne Fallou Mbacke di doomam ak soxnaam soxna nguy Fama Cissé ak seen i ndimbal Serigne Fallou Mbacke sooy bu yebal na ak njabootam. ñu ànd ak Serigne Daouda Touré ak seeni i soxna Awa Ngom ak i mbokkam soxna Sali Diallo ak i mbokkam ñoom ñëpp teew nañ ak teewaay bu ama am solo soxna maam Sey Busa ak i mbokkam ak i xaritam jógee Touba am fi ñetti fan bàyyi taale ne na gis ne seen taxawaay ni ngeen taxawee ci daara ji ndax daara ji seen daara na ngeen déglu nag bu baax ni mu ko noonu laa koy waxee du ma si yokk duma ci si wàññi nee nañ soxna maam Sey Busa ak i mbokkam ak i xaritam joge nañ Touba am ci daara ji ñetti fan ngir bis bi indiwaale seen i tiraanga yu yaatoo yaatoo yaatu ah man de man wax dëgg yàlla moom bàyyi taala waxal gars yi ne leen man Touba laa dëkk fa laa yor daara xanaa ku may tiraangal da ngay bàyyi moom ñëw Touba waaye conférence bu jàmbur dem fa ñu lay tiraangal loolu de fii rek laa am bàyyi taala maa ngi la koy jottali dégg nga sa mbokk yu baax yi ñu may tiraangal waaw man li ma leen wax rek lanti noor laa du ma téye diw damay bàyyi mu jàll safaan ba rek laa mënta wax. waaye lu rafet moom dama koy wax sa kaw am na ku ma laajoon nag danaa ko waxaale fii benn bis waxtaan naa ba sa kanam am ku ne ma saay xanaa géwél nga ma ne ko attention de du ma géwél duma ma ñeeñoo xanaa géwélu Serigne Touba wala géwélu alxuraan na leeraale nit ñi booy wax ci xawee bari rek ñu am fu ñu la féetale géwélub alxuraan laa géwélub Serigne Touba laa na leer Omar Cissé laa tudd dëkk Saalum fa ñuy wax jaamal ku te di ko seeral yàlla te di ko seeral Serigne Touba te di ko seeral kóllëre gi mu séq ak yéen ak xale yi sant na ñëpp bu sañoon kenn ku nekk mu tudd saw tur tudd saw sant tudd dëkk ba nga jógee waaye xam ne na loolu yombul ba tax na nee na la sa des na ngeen koo ko nangul ngànt képp ku fi ñëw yàlla gis na la yenentu bi gis na la alxuraan mi tax ngay def gis na la te dana la fay kon sant googu dañ ko doon jàllale na ngeen xam ne nag lu si jot lu si rafet si Baye Talla la lu si manqué si man mu gàtt xam-xam mii la waaye Baye Talla sant na ñëpp gërëm na ñëpp mbooleem nitu alxuraan mboolem soppe mboolem wëllëre mboolem xarit mboolem dëkkandoo mboolem yaayu daara mboolem bàjjinu gone mboolem yaayu gone foo mën a jógee ba taala sant na la leer na wala leerul leer na bisimilah kon ñu continuer wool ma dong bi si topp noo ngi jéggalu bu baax bisimilah oustaz wool ma dong bi si topp mooy kan yëf yi xaw naa am nu mel nag waaye na ñu jéggal rek bisub alquran moom surtout bisub nit ñu baax nii rek la mën a demee day mujj xat lool rek waaw baay taala bisam mën ko tuuti waaye nag ni ma ko waxee woon rek du ma dëñ di ko wax am na koo xam ne dafa ñëw ba si man ne ma waa yow yaa say busa da nga koo miin ma ne ko déedéet jëfam ju baaxam laa miin jëf ju baaxu yaa say busa moo booy samay nopp waaye yaa say busa moom miinu ma ko wax dëgg yàlla moom mi ngi man maa nga Touba nag comme moom wax dëgg yàlla maanaam ni ma ko mën a waxee wéttale sunu jëwriñ la jàppale ko si daara ji ba ñëpp xam ko foo ñu tudd aw turam ku def lu baax ñu wax ko yaa say yow ak ñi ngay àndal ak mboolem kuy def lu baax yàlla na leen yàlla jàppale Baye Cheikh Baye Taale bég na lool Baye Séni Baye Taale bég na lool ak mboolem ku fi teew délégation yi yëpp Baye Taale sant na leen gërëm leen kon ngeen may ñu tuuti nag ñu wéyal liggéey bi waaw nañu ñëpp xam may rek xam ne li si des bariwul lu toll si juróom-ñetti nit rek la te ku ne day barkelu ñi mokkal moom li si des bareetul kon woowal xale bi si topp si ñi mokkal ñu continuer bismillah Mouhamadou Lamine Diagne mi toog الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله Mouhamadou Amine Diagne Mouhamadou Amine Diagne ala inna awliya allah Mouhamadou Amine Diagne continuez bismillah ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun assalaamu alaykum waaleykum salaam wa rahmatullah بالله من الشيطان الرجيم ألا كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فلا أقسم بمواقع النجوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقسم لو تعلمون عظيم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا sadaqallahul azim jërëjëf Mouhamadou Amine Diagne jërëjëf sëriñ Massayar Diagne moo ñu koy joxal diplôme am Mouhamadou Lamine Diagne bàjjen yi noy waaw na photo yu rafet bàjjen photo leen ko photo yu rafet dégg ngeen Massayar Diagne moo ñu koy joxal diplôme am bi ana Serigne Massayar ñoo ngi woo dong bi si topp di Serigne Abdou Hakim ak Serigne Salihou sëy nañ jege si Massaor Diagne moo ñu koy joxal diplôme am fekkee mi ngi fi nañ ko photo photo yi rafet mën na wàcc dem ne waaw bàjjen mën na wàcc dem sa ruq bee photo yi ak vidéo yi ak sanab yi ba si youtube yeeg whatsapp yi na yëpp rafet na jàll fépp nag أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس لا يستعفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول wa kaana Allahu bimaa ya'maluuna muhiitan. asbuk. jërëjëf. sadaqallaahul aziim. jërëjëf Serigne Abdou Hakim macha allah Serigne Abdou Hakim Mbacke Diaw macha allah sa passé bii kay jàng ba doyal rek nga war a def Serigne Saliou Sey moo si topp bu noppee Serigne Touba Mbacke Fall. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Serigne Saliou Seye may ma tuuti ñaari baat balaa ngaa commencé maa ngi jégg lu baax dafa am kàddu cant gu fi jógee rek ba tey si Baye Talla te jëm si si mboolem daara ji jàngalekat yi Baye Talla nee na mi ngi leen di sant di leen beral seen cantuk bopp jàngalekat yi muy ustaas yi si wàllu daara ji ak jàngalekat yi ci wàllu école bi ba ci soxna yi nga xam ne ñooy liggéey liggéeykat yi maanaam jànq ji nga xam ne ñooy liggéey ci biir daara ji nee na ñoo ñëpp mi ngi leen di beral seen cantuk bopp liñ siy dolli itam nag te niñ leen ko waxee mooy wax ju rafet ju baax moom sii wala ca gën Serigne Massaer Diagne waajuru Mouhamed Lamine jaañ mii doon tari te wàcc nee na jox na daara ji téeméeri junne Serigne Massaer Diagne nee na li ko daara ji defal ni mu ci bégee jàngal ko ay xaleem yaral leen ko yar bu rafet def si ñoom xam-xam ak Baye Talla liggéey bu rëy bii mu nekk tax na bég na mbég moo xam ne jox na ko téeméeri junne jox na daara ji téeméeri junne waaw nee na rakk Mohamed lamin Diagne bi Diagne Mohamed Lamine Diagne doomu Massaer di rakk rakk Mohamed Lamine Diagne bi war a tari te doon doomu Massaer nee na Massaer nee na am na xaritam bu tudd Ablaye Dia joxel na ko cinq cent mille francs ci daara ji kon Massaer moom ak xaritam ku ne joxe ne cinq cent mille ci daara ji muy un million leer na ñooñu nag nañ leen ñaanal yàlla seen fan gën a gudd tañ gën koo mën te ñeneen ñi nga xam ne yéene nañ loolu tam yàlla diisal seen poos bañ mën ko ndax nag ab julit foo ko fekk rek yéeneem day rëy kon Massaer joxel na doomam téeméeri junne ab doomu rakkam maanaam rakkam bo doomam jooju rakkam xaritam Ablaye Dia joxel na ko téeméeri junne ñoom ñaar muy 1 million. te Ablaye Dia it joxe woon na 500000 démb kon Ablaye Dia joxe na 1 million benn bi mu joxal ko boppam benn bi mu joxal ko doomu Massaer Massaer it teg sa 500000 muy 1 million 500. leer na naa ñi wallaahi lu ñu xam si lu rafet day leer waaye yàlla bu ñuy xam lu lëndëm suñ nopp bii bëgguñu si dégg safaan waaye lu leer luñ dégg danañ ko siiwal Massaer joxe na 500000. Ablaye Dieng joxel doomu Masaar 500000 joxel boppam 500000 muy 1 million 500 si daara ji yàlla nañ bari seen i kem képp ku fi joxe muy dërëm muy junne muy 1 million muy 500000 yàlla ko yàlla barkeel aj ko si man jaa abil hasanati falahu asru amsaaliha waaye yàlla na ko yàlla aj si wa ma anfaqtu min sayin fa huwa yuxlifahu wa huwa xayru raasiqin jërë ngeen jëf kon ñu continuer di woo dong bi si topp rek te woowoon nañ ko muy Serigne Saliou Sey kon Serigne Saliou moo siy topp Serigne Saliou bismillah asalaamaaleykum فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاب قبل هذا وكنت نسيا منسيا ما شاء الله xale yi mën ngeen di jàng kaakaar فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ما شاء الله فكلي واشربي وقري عينا فإما غدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلنكلم يوم صيا ما شاء الله فأتت به قوما تحمله لا إله إلا الله لقد جئت شيئا فريا نيسان يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا baax na baax na baax na baax na baax na baax na yéen jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou Sey mais yéen yaakaar naa ne xale yi ni ñuy jàngee seetlu leen ko sax Baye Talla sonn na si liggéey bi jàngalekat yi sonn nañ ci liggéey bi njàng mi dafa jaar yoon njàng mi si boppam moo jaar yoon macha allah maanaam lii ku xamul dara ci alxuraan sax da ngay xam ne njàng mu jaar yoon la te neex alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf xaaral oustaz jox la fi ngay jàng ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذه الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض والود وتقر الجبال ودا أن دعوا للرحمن ولدا الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين للمتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ما شاء الله sadaqallahul azim masha allah Serigne Touba Mbacke Fall Serigne Touba Mbacke Fall jërëjëf cadeau boobu ku ko moom ku moom cadeau bi lu si wax ki koy jàngal Serigne Touba ku koy jàngal Serigne Saliou Konte bismillah boobu bàyyi taalaa moom bisimilah bàyyi taala mu ndaw am jëlal samaam bi kon bi itam nañ xam ne Serigne Touba Mbacke Fall moo ko jox bàyyi taala kado bi am bàyyi taala jox ko sama Serigne Bassirou Faye moo toog nii bu noppee Serigne Moustapha Ndiaye moo si topp man naa waaj jërë ngeen jëf soxna yi xale yi jàmbaar leen waaye yéen yaay ak bàjjaan itam jàmbaar ngeen te lii nag da see baax gis nga xale bu mokkal alxuraan ay baayam ak i ñëw sa tariba ak yaayam di ko bégal a baax jërëjëf oustaz joxal mu war a jàng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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلم كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عند عنده ثم أنتم تمطرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهكم صبركم ويعلم ما تكسبون وما تغطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين